kum def ñëw na delal ko bisimilaay

Tuti, tuti, jaliba, kamili ki jali muso, <laughs> yuke jali muso. Awai. ami. Naam. Alisa tu jabi wuluta, ami. Jaju abarika. <laughs> ajal iya, iya. iya, ya fo jamaya ye fa saro lu menke ni ya ke jali kini ye ya ke jali ke me de famiya ami dindi o fat mada sara la ami abarika ye ami sakini bala ami ah ummi Haydara, la ami o abarika nadan da sabaro lela musuke balia ayyo julo mayo iyo iyo tamayo bari sabari ayyo fadu de kumola fadu mada fadu mada abulai nasiri ba badinya badinya awara magira tenne amidin no jaju badinya julotela foyo malikiyama lo ko yidde de ma fa ma so de bari dama jo hono yaaju mom ko fa ibrahima de ni amoy musola musiya hadi ke da kedi wallahi hade musuka da de te ko ma de dola para ko de ma de ma ko je ya musuko man do do ya yare ke o bere ka par ke ya mo jigo ani kelo ko da ko la ka ke to

sirenden konsɛrɛ bɛ ne jeli b'a bolo i tɛ masa i b'o kalama dɛ ami fɛn tɛ mɛn n'i b'o da la i b'a fɔ la so min na bala a bɛ mɛn bolo k'a fɔ taa kama y'a de na k'a di mamuru n'i ye ja jɔn ne faamu mɛn de n y'o lɔn ne faamu mɛn de i y'o lɔn dɛ fula n'i ye feere walahi kelen b'a t'a san ami n'i ye salon lɔn feere mɔ mɛ maa lɔn a t'a san na si ni ɲiɲa la mɔgɔ la barika ni so ni wala salon di y'ale sago la jajuma murembe awujari kurolo jajuma murembe baraka ndi mbe sara mbe sire mbe tekundi jalolo alimi no sumaya boy sama program la lebe fella wolam tunyata ita mooy tili kiliŋ tili fula a si foyi so bula ñe a ye lahidoo ta ñe a ye a ke kiliŋ a ye a ke fula a ko jali manda kon naamu i la loncini sani te munu koni te munu koto te munu kondaa te munu bari i b'a kɛra holo holto sago san jamini ɲɔgɔn tɛ b'a jo la a dun sira o sira mɔli bɛ sira a kan jali muso min fɔlɔ loncini kan bi a k'a kɛra kabɛ dɔ kan jali muso fɛlɛ jajuma kuletala yake ni wallahi kabiri gerol na namna holo kodo ikoy ni misana muna ne ni foste di na namna holo ada adama baro na seriba wallahi jaju gure mafujuru mansa fukala mo furi wala baraka dinan kama ale do wajana Ablaye dama bëgg a ñëw ci woon ma gars yi wéefal ma gars yi ñëpp jóg ma wan leen xale bi xale salañ la. tuulal walal ma gars yi ñu nga mun xale bu jigéen Susan. korban korban baje korban Umum fotimi yalam to. Ngaje fala ko jambi. Ya, tapi ngaje. che vogliamo di Cariello vogliamo bene a tutti lasciamo che vogliamo Yeah. Vamos lá, vamos lá na fé. Condições de ir. Aí você for ver. Ben o işi seçmezsen bunu ilgili. Ya var bir soru seninle ne ne? Ya da tamam insan değil. Benim bir rolü var. Benim o değil. O değil yani. İmam ama sen sormadın ve en sevdiğin. Adem için. Cafer Adem. Especially. ami ami jaaju ana ami jaaju borom Angleterre ak ki nga xam ne moom moom Green Party bi moom Al Crown Fashion waaw moo tax tey ñun ñëpp ñu teewee ami ñëwal foo nekk mu nga egsi dama ne nit ah, amul dara lu taawam ñu ne doom bi góor yaayam waaye daal ah, taxaw nga ko ami kon nit ñi nii amul nañ difficulté ci stade bi because stade bi Latin difficulty because somehow they mix it. Ay, naku ako niya. Yeah, like, pero was this for the you know. Wow. Wow, maybe more than one people may. Wow. Kaya mo na na-informate, na-referral kami. Namin na binayad for the first study mo na napamay din ko nila because although, kung di mo na kanina lang like in terms of our deal for the camp. And I don't think you know first how I do it in the young amount of moment. But I don't think you can another looking at the social on one side. Definitely, I was very happy because someone who did it and I was on the player for the show, very happy. And your feedback was on the other side. You know, that job, that the back, that the back, that the back. All right. Yeah, Muy, muy, muy, muy seguro. Muy seguro. Muy seguro. Congratulations, Gorobi. Congratulations, Gorobi. Apply. Yo ya me sale, yo ya me sale el cartabí. Apply. Porque jale mi lluvia brava. Porque se quiere salir el cartabí. ¿Ah? No murió. ¿Ah? Muy excelente. ¿Ah? Long story. Long story. Long story. Long story. Long story. Long story. Long story. Boycott El Flamifos de Mariski. Atiro. Mesmo o Leônio, ele vai mandar ele Flamifos de quem nós somos fotografia. O fotografia nada. Se você quer ver a outra, o disco nova. O disco vai dizer, olha, uau. E o outro de Guiné. Ei, ei, ei. Vamos lá, Rodrigo.

aywa dañu dem n doon externe na nga su huitee nii dañ leen mën a chargé ñu dem doon externe ba si à nombre di charge yaa ngi understand dama ne yaa so I understand. One day I'm going to post the money in the Are you serious? Vai na comuna. I understand. She started with your very good work. Because I'm not a coming. Even if you get to pass away, I'm the first one to understand the world. Because when I ask you, I'm one accept. waaye from the first day ma woon man man naa dem to ak sama moom sama dem bi kii so si la dem ta relation bi foofu la starté mu dem to ak sama ma ne ko ne man dafa ma ne dama la loo to ak sama bay ma ko la ne suma jabar so ma ko waxee loolu mu ne ma ne ok non problème man suma fi ñuy wax si yoon am wala soo bëri bëri day am saan si la xam nga ma waxee loolu si. Abi ni mo lay mën Father, we say, as long as one. Tahu dia ni, tahu dia ni saya sangat. Saya sangat bahagia dia, dia kau cerita.

yaa mun a yore sëyal bi ba mu neex nag yaa ngi may waaw sangu ba set sol sa set war nga sol sa istri ndax sa istri bu baax daddy, papa daddy, Abulai, papa daddy, Fatia Tola, papa daddy. mother, I'm a lady so more, you get you baby, my baby, my baby, my baby, my baby. Hey, what's going This is my day, Nata. I am cool, Seniata. I tell you, I tell you, I tell you. lorasa. Amiga te borila ya lola. Ala la finari lorasa. Amiga te borila ya lola. Imaja amija junasa. Iyena amija junasa. Yuke ngalo amija junasa. Imaja amija junasa. Gambi ngalo amija junasa. Amiga te borila ya lola. abijaju lọta. alumajẹ abijaju sẹnẹ. ìmàjẹ abijaju lọta. alumajẹ abijaju sẹnẹ. ìmàjẹ abijaju lọta. alumajẹ abijaju yẹn sọ. abijaju lọta. fara náà fa sáré kẹfọ àbámá àìsàn safo aki ba songo e safo wulu abulai baba amini ni mo ami wa ami amina ya rabbi ami jaju jaju ni rasubalu sali fansa bo amina ya rabbi amini ni mo jaju خليفنا امين يا ربي والله انصر امين يا ربي فتنه امين يا ربي امين امين صافو صليتا فصافو امين يا ربي امين والله قول مو انا ديما تيم بالي ما انا ديما تيم فن ما انا ديما انا يسو دورو yojajoba imolobana olobanile fagole mamonele yo soralule

ñane be jay ko kan to furo le muti kan non kata le muti do ku le muti jammaro le muti kedo ko to do ko yanu le an non ya ta yo le ko nyaabo ka nyiro ke bar nyela ko ni banko ay bo nyoto ani musiyate mone di ko nin ko muso ta senda fa min bela re ko wor ke senda muso de mun nyallo la muso ba higindola dola muso fa higindola musolɓe ɗum ñallona bitilo oɗo muskate monete musolɓe man sakke o wulula musolɓe woni o wulula musolɓe alimamu wulo oto musolaliga kata ma kadi ko e jorata bul i joramɓe ala bula ka eminata mbaɗaɗa kenneya ene enter sindi tan bara manke kay bul sawno ndin tebor wonende sindi tan a ñanta waɗi leyla bogre ko bara haɗa waɗi mo wonde ɓe sini no tolle tamu ñoote ko fof fo mbo jalinta yarete ɗiɗaɓe ñamen tubabude sen satanola jam ni xoolee fan fula mo safar kaw ye moy wala na jalo man ta da wona kar kala wona anun nan ga ko mar kan da ke birno sawla ni ko da ko ko salama da ko iman na fon ko jire man na no jibe ko non ko ya min fo man la ko to dal ba ko ya da ni gaaji mo subi tella ye tan ngadi ma so je ngate no je la nga to je tan ngara bo je రాజు అప్పుడే maka di kuning maksiat aka masu ya bayan dina don jiko ni a jan tara lalaja ita da kan ani da ka to ne ka to babu da ran tara bijan ban tara bijan কারে মনে খিজাম কারে মনে ফোজাম নারে নকো ইবা মারে আদোকো ko musoro doku la kidi wono konto bola iba edo ko ke konto ko konto bonyani na musu kanda be din kanda urula ngana be ngana urula salihino be salihino urula kende be kende Muso musoro ko digole babu tembe musoro jote babu tembe no musoro futu baro nan kaga ndai bala din jo ko ami jaju dal ba ku ya dal ami jaju bure ay jaba ikul lahi dimo ay safwa kay marwa ka kadale am faminna siyayale ani ko na siyaya ke nyaga si siyala eh ami jaju mambure ikale na tanya kola badi nyaga mi ina tanya kola sunju nyaga ina tanya kola nyaga mandi ami nyaga mudun ti, nyaga bukolo sikolo sole ti, da mi ami la alhamdulillahi rabbil alamin allah jaju mun mura baraka ne rabu nya dan tabarkala ami jaju kuma muru jan ne wadi kami jaju min nan ku yela wani ni kasara da kirin da mi nin ta ko muso da fenta mi jaju afa mi balare ko mon man ke fenti yara mi man ta na ko bu do to babu do kono ami man ta ti mi ko babu do kono ami man ta ko filin kan so to babu do kono nasara ya jan ne wadi kami jaju la kuma mun kullo ne ami jaju ba su matero amijaaju ɗum wona jaabitema ba ɗum wona jaabitema amijaaju bani fadu ke jaabitema iyake jaliba kuyate sakili badi on kon mbani mbantamba jalibane bota alani bakoton ɓay to o bakoton ɓay wona woni aysaton ɓay wuluta wo aysaton ɓay leyjali sadio wulu amijaaju iyake mbari yamma ñani momeke isaka iyake mbari mbari e kalima kuyata la migi ajo sakini babi kukumba ni pankamba nyamiya ni nukumba sika barika de bala migi ajo barika de sala ina la sonda barika de wuro mumeke mana ni kanda de kirinki mumeke kesu sola di wote barika la ke wote la di wote barika la usol ko di wote babu tembe usol di wote babu tembe la musol la baru lumakanya ate kundi wakela amija ajo te kundi wakela fokuba eh እኔ ኪባሮ እናቴ ደንቅሬያ ያሬ ሆኖ ኬመረጃ ሚጃጁ ኢባራጅን ጅሳራ ቀመኛኔ ውስያቁ ደተለመ ያትኛ ለሙሜቴ tubabu da jan hadi ya tela man kuyela ibala jinju fara salah dari yani koko da jali jamaala ami o koko da jali musola bitilola si bare ko no fara sai se to da jali musola bitilola ami jaja barkan yela bonya la dan te barkala na ñaani lu wala jël defal la lu wala jël defal la si yàlla ne ami jaaju ko na ya, ke ne ba dunda ga ya. ñago eh, la baadi ñaga ami ga ñago la sundu ñaga ani bari ñaga man ni de ñaga mu dun ni koleti si kolo solere ni ko di jaba wala ni ñu ba baadi

jannatiranka kudimamaka tambanga arabale sofaulum bana solenyene kiliya musaran dogaya musa dimpawanin pampama sorae morendu soraman fellandi inum kilmandi saraji manka ya rasulah siya musa di ponsa haletini ya soto asijankoma amile botarane sora musoto abarata nyela bunyala ami dantela barekala musiyate monedi ami o la déjalo Ai! Aolo! Aolo! assalamu alaikum kana kala ko ñatate buru jom le sapu ɗi ja fanu bena ñatate ni kawe so hadi yemme ni kin masara mi asamu bu wa badi makam na e ki mi je jole be mate jom wala bade mi jukum heweno e suusu mukana kanu yo kare bana bana yo kare yo bile saf tarfa kuti yo kala ko nyata de buron tu di anime waya ba da se ka wala wani bajun ta de je be ka sanke lo ni ko duway rek mi tekan kayra no kala nyaade lu be kan kayra je be ka sabati de lu be yo ni nyaar ko duway njoren si bandura nga sori si jillet di kana seka jebe kam mutendi wiye ba bola e yone mi to duwa ko tam bambura nga la jillet tekan, bo fullo nya ballo yen te kan na nyalo nya kayre na lan kayre mhm mo to di frère jerbe ba mhm alaikum kana ta ko ni sa sa kola ika sa kola isaf anyin anfan amita isaf inomu ola ko mi amera mahuma isaf ami isaf ko tombo ma bintu anyila mu anya de abe anyila mu mi nyeba jo anyila mu fani nyeba jo bari jet be ko sangal fu ko lo yeje kan ba ka tani lambu ko mteka nanyila teka simaya mteka feno teka kuja moda seka mteka nyila aja amanyino lifana eh nye baba ne mkaramba para nyila mbo mle alifana ona ko abla oni dikibi kola ko manyila mbo alifana kunyila kumbo mtu abla ala ko manyila mbo alifana nye baba mhm ni karesa adama jijo mtekana amanyao Siyo po na kapo, yo po. Manala ko manari yo kapo. Hmm. Eh, wala mo ka wala. Hindi kami bulong goren. Hindi kami bufos. Hindi kami karunga. Nasa nagmini kama. Amin. Hindi kami. Amin. Ang ilaw na si Maya. Kilan asing Maya, ya. Wanu ni wanak baju mbek kama. Digilen hmm. butuh mam. Biar mau ripak lah putu. Amin. Ini Dua-dua muyutu kami tak terima ya Allah. Ya, Minta kami mak tu orang. Waktu yang bering ya. mangi Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin amin amin assalamu alaikum balbe konto nal to nal konto ra ite non e satu suso e fo bama ko kontanta ko kontanta ko kontano danta dana be duwala ami ala mari ay ñu ko ay ni ay ko ngani be men so ni ala mari ala alama korda yirwa alama musu anake ma alama dinkirin kendo dale tem alama la fito so korda fan alama yirwa ami ndika jono la ami enta kango janga yande jim farato jande ami yin dungo ta ma dir ko ko ay dungo ko ablay da musa amtala ko ma do malta ndungo ta ko adingo la ni momen ni fay aɓe lownogal abakela woto mbe ami tentula mba jayira na family be ɓe ami tentu koye mba jayiga ñintili fulode ñintili saabu be kono mbaɗumo ɓe jayi nin contano nin sewo momonaga nin sewola kala nin contano mbe ami mba tentula mba jayila a bama fana min kata min roti mba tentula mba jayila kaɓe mbi niaje aɓe sababu aɓe ta mbi mamaɗa ta fafatata ɗimɗa ta toppoto fafatata ɗimɗa woto mbeddu ala amiye anala family beyi simayani jata kendi ala mbede ala ablaye fanaye ala maɗana musu musumo mela alama soro dinkiɗin jama jama jama alma amiol be to maso to mamañol momoɓe jan ala alma alaye be so simayani jata kendi ala contane dafa contane danta ɗa ala barka tele ifo ɓanade ifola baya ɗum tan anɗoɗuware ifola kuluruma kuluta si maa ngi jaay di kenn vraiment. asalaamaaleykum sama mbokki jullit ma ñu ñun ñëpp fan bu gudd ak wér mag la si ñun ñu fi teew di ñaanal ñëpp sama yaay yi sama mag yi sama rakk yi ak sama maam li tax ñun ñëpp ñu toog fi bési tey bii nii. di ko ñaanal yalla yàggal ko suñu kanam di ko ñaanal tam fan bu gudd ak bu yaram suñu yaay tam di leen di ñaanal fan bu gudd ak bu yaram sama rakka bi ni man mom duma mëna a wax dara ci mom xanaa content rek ñu di ablaye mënuma ko ñaanal sama ñaané rek dina ci way bàyyi lepp ci loxo yalla inshallah inshallah mako bay lepp ko loxo yalla di ko ñaanal fan bu gudd momit ak bu yaram di yéene jàmm diggante moom ak jabaram yalla yàlla ya rafetal chat si digante di ñom ñaar yalla musal leen ci seytaan ak pexem no di leen ñaanal ci bu neex incha allah jaboot yu bari leen yàlla musal seytaan suñu yaay bii nii tam bi màggal bés bii nii di ko ñaanal jàmm yàlla may ko fan ba gudd ak suñu yaram mooy amee jaaji mi taxaw bés bii tey bu ñu teewee nii gannaaw yàlla moom la ak suñu yaay ñun ñëpp di ko ñaanal moom jàmm fu mu nekk yàlla na fa am jàmm buntu wërsëg bi gën a ubbeeku ñu ko ñaanal moom it fan bi daal ñu ko yaram yal na ko yàlla may jàmm kan lañu seetaan seen si ci fan bi di ñaan fan bi yëpp ñu na yàlla def jàmm si diggante bi ñëw si jàmm si lañ diine yal na nga ñëw ak li ma def muy tàmbali man ak suma rakay la ak suma mag def nañ ko ci xepp waaw lii lañ jot a am dañoo def rawle waaye lii lañ jot a am si bés bi te xeeb nañ ko waaye lii lañ jot a am ak teg tam 3000 moo nekk si biir enveloppe bi nii joxe nañ ko ñu ngi koo xeeb ba des na tey xeeb nañ ko nag suñu sañoon ñu def lu ëppal jërëjëf di ñaanal ñëpp jàmm. lan moo kan, eh? kan, eh? eh, si nekk nii. yi lu ay ay spray ay lalaale yëpp yëpp mu ngi ci. pansa bi jëndal ko takay dama bëgg mu def lu baax jàpp si fukki loxo jëndal ko ay mer. na ko defal lépp lu baax xamante ne lu sëy rek incha allah yal na yàlla def jàmm si seen doom ñu fi nekk. ñu ñu jërëjëf ñu la am si bés bi. man man maa mag yi ay suuf suñu doom la. te respect doom bu te respect ku nekk. si family bi yëpp la respect xale bu yaru amul wax amul dara amul sëy sëy bii yàlla ñu sëy bi gën si maaj ci kawar mu ma ci kanam yàlla mu seen leen si cat yàlla mu seen leen si seetaan si kër gi mu duggee si kër gi fii yàlla nekk jaama si kër gi jaama si famille bi yëpp moom ak jëkkëram nekk nekk si jaama ñoom ñëpp yàlla may leen doom barke doom bu góor doom bu jigéen ay yi ñun ñëpp ñu am say ami tamit ñu ngi koy ñaanal moom mi suñu góor gi ñu ngi koy ñaanal barke fu mu génne ni yàlla ginnaaw yokk rek mu ginnaaw yokk rek yàlla musal ko seytaane fu mu dugal di yàlla ubbil ko jaam weer bi tamit ñu ngi koy ñaan yàlla bu bëgg ñu tàngal ñu bu ñëwee rey rek ñun kay xanaa kontaan bu ñu egsee si famille bi fii kontaan rek xew bi kontaan nañ kontaan nañ def nañu cër jëf nañu cër lu nekk doy na alhamdulilah rabbil alamin maa ngi sant yàlla maa ngi delloo jikat si ñoom yëpp maa ngi delloo jikat si famille bi yëpp sant yàlla jërëjëf jëf jërëjëf jëf seeb yàlla ñu am si barke am si doom yu barke ñëpp kon nag yàlla may ñu jàmm jërëjëf jërëjëf asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ñu ci nekk mën na support bu kontaan naa trop trop trop trop Ablaye daal moom ko ñaar moom ak jabaram sëy bi yàlla sëy na ci yàlla def barke yàlla may leen njabootu góor ak njabootu jigéen yàlla musal leen cat ak seytaane yàlla bikaas ak biir tàggale leen ami moom ko buggee wax nañ ko wax ba ëllëg du baax aw fee yàlla laa ko bàyyi na ko yàlla borom fee xolam bu baax la sama di ma ñëw si kër gi léegi di bis xale bi mag ak mère bi ñëpp ñu ma ci ko mëna gañu bokandé bokkande yàlla ma seen fee yalla na leen yalla borom bi fee ci xool ma waxee du sori trop mu ma passé di kontaan trop ko jox effo Assalamualaikum dama ko rëccu ndax nu mu amee respecté dafa fonka mag yi gë aw ma dara lu ma ko wax ndax di ko gërëm rek ami ami xale boo xam la dama ko mujjee ragal sax ndax nit ki bula, bula bu la bu la mayee kër bi mu ëppa den koo ragal mujjee ji baaxaayam ak joxe teraanga mag yi moo ma fi teewloo tey waaye kontaan naa trop si seen famille bi ndax kenn bàyyiwut ko kenn muy liggéey bi muy dem di ñëw ñëppaa ngi xëccoo su kii laalee fale kële laal fale loolu foo ko gisee kër goo ko gis nga xam ne kër gu baax la moom suñu baax la jógee meer bi moom suma jëkkër la am amuma dara lu ma ko waxte ndax di ko ñaanal fan bu gudda ak wér gu yaram Ablaye mii ma ngi koo ñaanal yàlla defaral ko jàmma li mu yéenee ci sëy bi yal na ko ci yàlla defaral loolu xale bi toog ne yal na néegam tilim yal na lalaam tilim yal na boot ba muy sonn muy wax meer bi ne dimbali ma meer bi yàlla na ko yàlla yàggal fii suñ bët yàgga ci moom am su ma bëggee wax ci moom lu bare sax mën naa am ma nga jooyal ma fii ndax taranga bu ma jox rek loolu doy na xale yëpp taranga lañ ma jox Ablaye mii toog nii sax taranga bu ma jox doy na ma ndax bu ma fi ñëwee ba tey ñu maa xeecoo rek ñii di ma laaj ndax lekka nga ñii di ma laaj ndax bugga nga lii ndax soxlaa nga lii loolu taranga rek moo ko waral kon maa ngi koo gërëm di ko santa lépp lu mu yokku fu mu nekk ci bitim réew yal na ko yàlla yombal ci loxoom yal na ko yàlla yombalal yooni nasaraan yi yëpp yàlla defaral ko jàmma yàlla jën koo yokkal war sagaam li def ci ceet bi yàlla jox ko leneen lu ëpp loolu yàlla may ko fan bu gudda mu may ko wér gu yaram yàlla musal seytaane si seen famille bi yàlla defaral leen jàmma ju rëy a rëy jërëjëf waay ok Ami

mine yaay mooy fensi doo fensi kër ay fens su daanoo sutura kër gi yëpp si biir la nekk kon nag ñu ngi koo ñaanal yal na fens bi taxaw lu yàgg ñu ko ñaanal yal na yàgg si kanami njabooti yal nañ toog ba di ko génnee di ko weer si naaj bi yal nañ toog ba di ko génnee di ko weer si naaj bi dal nañ toog ba di ko génnee di ko weer si naaj bi waaw su mooy jërëm ñëpp mbokk doole ko suma mag yi bu dëgg ne ñaar mbokk lañ wan ne ñu alal yàlla léegi alal yàlla moo la koy tànnal lu baax ñu lu bon yàlla moo lay tànnal sa saay mbokk te yàlla nag macha allah ñu di ko jërëj ah unité bi ñuy nekk si biir famille yàlla na continuer luñ fi gis tey te bi barki déema la te déema ba tey sant ci yàlla ba mu bëri yàlla na yàgg ci famille bi incha allah kontaan naa ñëpp nag ndig ñu ne soo xewlee ak loo mën ci am boo gistoo gestoo nga gis sa mbookaay loolu mooy sa gaalaaj te loolu am nañ ko may ñaanal ñëpp seen paas yeeg seen doole yeeg seen dool yi luñ fi def yëpp képp loo fi def yal na la yàlla delloo li nga expect incha allah leen nañ fa yàggante suñ doom yi nii yëpp ñu fi nekk yal na ne yàlla bàyyi suñu kanam yal na xale yi yàgg suñu kanam yal nañ toog ba ñi nga xamante ne takawuñ ñu takkal leen muur leen comme duñ def jigéen ñooy xale yi jigéen yi nga xamante ne tamit seen yal nañ leen si jaama yóbbu leen seen jigéen su ma majul sami maa ngi di leen sant ndi wa dëgg ne yàlla su ma gëstoo nii bu ma bëggee laajte dara kene ndinganeka setyamwe kene ndingasenja isilgeiro wethuma wethuma dadadadadadada te ken wetut fi luma wetute noonu la keneen weetu ndig ñoom tamit suñ gestoo dinañ ma gis kon may ñaanal ñëpp su ma commencé di tural ñëpp dinaa joom waaye nag kontaan naa parce que ñi nga xamante ne jógee nañ fu sori masih nah. mau ko takara ja ak suñu mag bi ñi nga xamante ne mooy yaay ablaye ñu ko ñaanal jógee na depuis casamance excuse waaye defu ko mau kutuk tumaa buntu mau kutuk tumaa tina fanta ñëpp nag bàyyi ma kenn faatu nag udah mau wax ci yoon li mu waxee ci yow dama xanaam

sisi mwa vya traka mbalo kwa kupati bi kuma de gari fi sima tanga ina nyo ngule ina lalla nyo de legi nakal, kala nakal, na kala tibi na ki de ni nge ni nge ale ni nyo bitani bayu makem ni sima tanga ma ju ni na se loolu foog na sax dama ko ragal dama ragal ma ko ni mu def lu baax am na yaayam ak ñun ñëpp ñoo bokk di ko jël tey ñun ñëpp bëggoon nañu mu fekkee bés bi billaah walaay talaay ki nga xamante ne ku taxawoon famille la kenn amul lu bon lu wax ci moom moo dee taxaw sootaat famille sax su problème amee. oto tiiɗo ɗum e jofni bakko muse mum ko keno ɗino wahdega ak mum mumtima yanga def noon robli moɗon seventine years ago roblima yalla bayiwot ko si deebo gaaw mo bayiwoni njaboot but i can say ne njaboot bii is the best gift bu su ma ko xasee du ubbi jéeméñam su ma ko saagee du wax dara dafay teg téléphone yi after du ko laata dina ma ne ina dégg naa li nga wax waaye understand naa tax nga mer te man aw dara lu waa wax damaa jéego su fekkee tooñ naa maa ngi jéego te du ko musa defati loolu doom ju baax rek a def yaayam Ablaye xam na ne ko suba bi jant bi ma ne ñëpp gis nañ tey bési xewam la fii bési xewam la naroon naa toog jàkkaarloo crowd bi te du def dara waaye liggéey bi su ñëwee si décoration ak lu bëri mu ngi raw fu nekka yooyu sarle ko ma ne ma dem leen oo na ñun mu ñëw su ko defee mu man ma dem jekkali woon mu ne ma ne mu ina mu ko def xaaral rek kaay nañ xaar ma jekkali liggéey bi maa ngi ñëw yow fi mu nekk nii sonn nga xale bu am xew ak xale bu baax mooy def loolu maa see jógee nag di jërëm suma caamen bi kooku di Omar Omar dem naa ko ñaanal ak ya, jabaram papa loolu si suma jabar boobu di dinaa jóg ñu ne daan jóg mu ne foog mu dem uti nag te ut na ko indi ko ba ñu di ko si jërëm ñu fi def yàlla ko yàlla fay di wàcce ko si njabootam moom tamit Omar ak Fat Ba sama ya. caamin la ak sama jëkkër la naka la def sama caamin ak sama jabar waaye gis naa seen taranga yàlla ne yàlla fay suma xarit yi Imran doore ko si moom ni bàyyi kari jaaban bàyyi na jom oni matu singaati oni matu ya, singaati ya mefe hamna kan hadi najua ndio mwana nimenyanya waina mangenya ni katika mwingine mai muna jom sembo kai le eh, ekati mbe buni ba ki magana jigen bi depuis five years ago dama nekk dina ko naka nga nekkee depuis xam bi Friday ba léegi ñu ngi jaabante suma sista si ñoom su ma leen jërëmee sax jërëma jërëmee parce que man naa ñoom ñoo bokk si lii su ma leen jërëmee dafa suma bopp laa jërëm te warul ma ne dañu boole ñu goro bi duma ko wax dara yal ah, na ko yàlla fay di ko doole ñun de ñu ko wax ne ko ne doom ji ñu jox doom ji ñu may suñ doom bi apprécié nañ ko ngir mënoon nañoo wax ne ñii bokku ña ñoom xeet mën nañoo discourage xale bi waaye defuñ ko dañ ko dooleel jàppale su ma toogee di wax sax kii dinañ fi Pemerintahan kefirek Akhirnya minyak lagi dia luar Akhirnya minyak Fasa ada kafu Saya kebajaran itu semua jalan Minyak mau Ini patah haus mobil Ini dari memang minyak nak Ah, wah nak nak nak ini nama minyak Ini kaya, Mas Mamabu não é que se vê lito, né? Vê aí, Eu chama. Aí se Eu de. Se mudou Eu caminho, filha, né? Thank you. everything she has done for me, my husband, my dear mom, and everybody present here. And thank you all for your, for the things you have done for me. I really appreciate it. Thank you. And my grandma, I thank you so much for everything. salaamaaleykum def ñëw na delal ko bisimilaay